I will now have the honor of kindly inviting Imam Sheikh Kebu Cham to make a statement. Please let's welcome our Imam. Imam, you have the floor.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 di Muhammad doomi Abdillah yàlla daf ko yónni pour ñu génne ñu ci lëndëm dugal ñu ci leer yàlla daf ko yónni pour mi noppal ñu bu gannaaw su njiit yi suñ kilifa yi ñu xam léegi yàlla dafa yónni Muhammad sallallahu alayhi wa pour mi noppal ñu àdduna noppal ñu àllaaxira suñ ko toppee rek ñu noppale yàlla na yàlla jàppale si loolu kontaan naa torop di ñëw ci ngénte lii ñu xam ne ngénte am solo la waral mooy suñu sister Safiyatu Diouf jërëjëf yal na la yàlla yokk dañ dee dégg ñu ne baax na jigéen baax na islaam notul jigéen ku wax loolu rek wax na lu amut islaam dafa teral jigéen islaam dafa ekkiti jigéen lenn rek laa bëgg ngeen xam mooy yàlla dafa jël jigéen ni dénk ko góor góor nekk kilifa loolu rek waaye naan daf ko not am saabale wax na ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu jëkk a gis si kan la dem Xadija loolu tax góor jigéen paat na lañ kii du mën a dem bàyyi kii islaam dafa teral jigéen su ma déggee ñoo xam ne di seen language lañ dee wax ñuy toon islaam di tuumal islaam naan dafa not jigéen dama dee bugg a jooy ngir lan xamul islaam te xamoon fan la islaam jénnee jigéen tamit amoon na jamono jigéen torox na lool waaye islaam a ko su ma la waxee ne am na ñoo xam ne seen diine mooy noonu su góor dee génn àdduna mi ba fi jigéen ji dañoo jël jigéen ji teg ko si kanam jëkkëram ba nga xam ne niw la ñuy sotti ko essence lakkale ñoom ñaar islam moo ñëw xeex loolu arabi arabi suñu toogaan si seen pénc mooy bantaba ñooñu ne ko sa jabar wasin na lum am jigéen gàcce moo koy bugg a rey dafay rus du bëgg ko ku bamtuwaat ko alquran mu ne lu may xalaat mooy benn si ñaari mbir ayumsikuhu ala huun ndax daf koy tiye si gàcce googu muy ruus du mun a boppam fuy dem rek mu ngi ruus ngir lan jabaram lu mu wasin jigéen ñaareele xalaat bi mooy mi gaspax sul ko islam yow mu ne wa idal mawudatu suilat bi ayi dambin qutilat jigéen ñi ngeen di sul dinañ laaj ban baakaar lañ def bañ ñu leen di suub wan safiya góor baax na jigéen baax na saabali wax na ko mu ne Aïcha radiyallahu anha góor ñi dañ daan dem di sàkku si moom xam-xam te wér du xamun xadis la kon islaam dafa teral jigéen jërëjëf safiya yal na la yàlla jàppale ndaw ñi waxtu bu ngeen nekk nii dafa am solo torop ndaw yéen yéen a mun a yóbbu réew mi dem si kanam loolu tax nekk leen ñoo xam ne ni yeewu ngeen bu leen kenn nax ngeen yàq seen réew su ma gisee ndaw moo xam ne dafa yuufa yaas mooy dafa nekk koo xam ne xel mi duy dox dama ko dee yërëm loolu tax borom bi subhanahu wa taala waxtu wii ngeen nekk di nekk ay ndaw dañu koo laaj yowmal qiyaama wa an shababihi fi ma afna mooy ndaw yaayam si lan la ko jeexal soo féelee waxtu bii lu si kanam yëpp danga koy fee waaye soo sogsite nga gañ alhamdulillah lu si kanam yëpp dafay sogsi yàlla na leen yàlla jàppale dina wax ne diine ji suñu waral ñëpp ko mo dina bëgg kenn ku nekk suñu yéen mi laaj lan la defal diine député yi toog ministère yi toog lan ngeen defal seen diine toogu bi yàlla seddi la ko nga nekk honorable ñu jox la cër lan nga defal islam billahi yàlla dina leen ko laaj allahu akbar fexe leen ngeen jàppale jàppale seen diine jàppale seen diine ngir diine moo fi njëkk mooy mujj ku nekk si ñun di tëdd suuf te wallahi bés boobu dara du la jëriñ lu dul la nga xam ne moom nga jàppale woon diine na ngeen jàppale diine su la yàlla mayee làmmiñ bu saf bu neex wala may la nga mën a bind nga am xalima bu ñëw pen bu saf jàppaleel diine farleel dëgg bul farle fen de kàddu yu ma dégg fii kàddu yu rafet la yu neex waaye bëgg naa ngeen jël kàddu yi ngeen defen diine lii rek moo ñu mun a mucc làmmeñ wu neex di farle fen du am barke ku mën bind lool di farle fen wallahi du am barke fexe leen ngeen farle dëgg ngeen xeex fen benn waay yonent bi sallallahu alayhi dafa toog ñu indil ko benn case case bi mooy lan dafa am ñaari wujju yu xeex kenn ki jël xeer jam ko wujjam fekk kooku mu ngi ëmb xeer boobu dal ci biir bi yaay ji dee doom ji dee te xam ngeen ne islam dafa fonk bakkan ci gàttal liir boobu nekk ci biir bi te dee ngir lan lor guñ lor yaayam islam du ko bàyyee noonu mi nekk neen déedéet dañoo caaj ka nga xam ne def na ko suñ ko xaymaay dinañ ko caaj si juróomi gëléem mbokki jigéen ja nga xam ne moo def li mi jóg taxaw wax wax ju neex dinaa ko wax si arab nga déglu ko doo xam lu mu waaye di gis ne wax ji dafa nekk wax joo xam ne dafa neex yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu dogalee loolu waa ji jóg mbokki jigéen ji ku rey قلنا يا رسول الله دلوا البعد كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل دلوا البعد كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطال إلى الله خير yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax mu ne kii de mbokki seytaane la kii de mbokki njabarkat yi la kii de dafa bokk ak yi xam nga lu tax mi wolu wax ji dafa neex waaye neexaay bi jëlul ko pour farle dëgg daf ko jël pour dàq dëgg ku fi bind point nga wax wax ju neex fu mantu doon nag te farlewula dëgg nii ngay mujjee yal nañu yàlla jàppale fu may daanele suma kàddu mooy jërëjëf Safiya yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla jàppale téere bi nga bind yal na si yàlla def barke di ñaanal Gambia tamit yal na ko yàlla sàmm yal na ñu yàlla may jàmm yal na ñu yàlla dàqal fitna mi dàqal ñu xiif suñ njiit yu jiite yal na leen yàlla jàppale lila amprowa di gremat kene fayi suma waxe tur rek dina ju te ma ju to tax ma nge wax assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf oustaz borom xam-xam moy xamale kontaan nañ torop ci kaddu rafet nañ lool yentam kilifa yàlla na leen fi yalla baye ñen yàggal thank you so much distinguished ladies and gentlemen, uh,